auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa man yatabiwom bi insaani ila yawmi diin mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñoo sant ñëpp di rafetlu tamit teewaay bi nga xamante ni euh, teew ngeen ko ci bis bi ndax bis bu am solo ñu si ci bu baax a baax nag am si xol bu sedd tamit bu baax a baax waaw euh, ci ñu bis bi nag ñu koy def ci ndigg lu Cheikh Mouhamadul Basiru Antañang am naa sax ma wax ñi yëkkati si ay kàdd si ndigalam di ci jéglu lu baax si kàdd yi ndax xam naa ni ñu ngi diglu waaye bu dee murid moom ndigal rek te sëriñ Tuubaa dafa wax ne laa taf xalloo say an bi xayri isni waaye tamit fal isnu sartu fi boolisaani bu leen def leen loo xam te ni tënkuwut ci ndigal waaye bu leen joxee ndigal am ngeen sañ-sañ wax naa loo tax sax ngeen déglu suñu kàddu waaye kon moom li ci wax ji lépp moom moo koy moo koy moo koy wax waaye daal li leen ci mën di wax daal bis bi sëriñ bi moo ko moo ko joxoon soxna si ki nga xamante nii mooy euh, ñu koy wax soxna Kata Mbàkke euh, moo ko si joxoon ndigal mu yàgg koo def lool yaakaar naa ne at yu bari bari bari def na ko waaye nag euh, lii sa xam mooy sabab bi rek di ñaanal soxna soosu soxna su màgg su tedd soosu ñu koy wax soxna Anta Ñaŋ muy soxna soo xamante ni ku sëñ bi gërëmoon la koo xamante ni ku jaamu yàlla rek ak nangoo liggéey ak bokkoon si nga xamante ni jigéen ñi nga xamante ni mooy ay ay ay ay ay royukaay lan si la si la si la si la bokk moom nag li sabab uh, teewaay bi ak mi lépp moom moom la moom la ñuy màggal maanaam màggal gi nag ñu koy woote di ko uh, defal ñaan rek ndax xam nga moom ñaan du doy moo tax bi bis bu ñëwee dañuy def ay berne uh, jàng ay kaamil wàcce ay xasida def ko yéene ko ko jàngal ko soxna soxna soxna Anta soxna soosu waaw ndax Sëriñ Tuubaa day wax ne war xaabul asiya ili am waati dunya ila xayaati ma war xaabul asiya war xaabul asiya li am waati dunya ila xayaati ma la xayaati wala suwaay xatan faxat lii saali xatan tan foofu in xafaloo daane tey ñi nga xamante ni ñoo nekk fale àllaaxira tey ku su fëggoon laaj ko li mu gën a bëgg danaan ñëwaat ci dunya eh, ba def fi ba ba lu baax def fi ay njariñ loolu loolu lay wax mm, kon nag ñi nga xamante ni ñi ñoo ñoo nekk foofu te mun ñoo ñëwaat ak te ñun ñu nekk fii ci kaw suuf di dund di leen fàttaliku di leen ñaanal da ci am solo bu baax a baax ndax nag eh, ñaan doy ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën ñëpp ba fi mu toll nii tamit diñ koy ñaanal ndax boo ni sallallahu alayhi wa sallam rek ñaanal nga ñaanal ñaanal nga ko kon ñu xam ne euh, ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan du doy loolu moo moo war moo waral bis nag bu ñëwee te ñi ñi def ay ay di ko di ñaanal di ko si di ko si di ko si fàttaliwu euh, di si waaw loolu nag la sëñ bi waxoon moom kàdd yi lu mu lu mu lu rek ndax nag euh, ñu ñu mun sa ñu mun sa ñàkk bañ ay sànnu sànni ay ay kàddu waaw kon moo tax looloo looloo waroon ñi sànni si yi ñoo ngi waaw hmm. waaw am na am na lim bu bare bari nag ndax ñu man yàlla def na nag dañu soog ak agsi waaye xam naa euh, gisaguñ ñu doon jàng euh, xasida yi ak ñu doon jàng euh, alxoraan yi waaw ndax bi nu ñëw rek lan fekk ñu commencé ñi jàng ndax yàlla def da mooy ñëwee nag gisuguma leen nag laajuguma leen ba xam ñaata lim la waaye nag xam naa ne nag dana xaw a bari ndax suba ba léegi ñu ngi jàng suba léegi ñu ngi jàng alxuraan ñu ngi jàng xasida xam naa ne su ma génnee teewlu ko ba laaj ba xam si gën lu wóor nag moo lu gën a wóor waaw waaw waaw kon ah, ñu yëkkati ay kàddu ci ndigalu Cheikh Bassirou Antaña la doon wax ci turam kàddu yi mat na matale na sëkk wax nga ci njabootu ci ci turu njabootu Cheikh Bassirou Anta Niang gépp kon kàddu Cheikh ba suñ Cheikh Amsati mooy yóbbaale sunuy kàddu ñun ñëpp naa di sant bu baax sunu sang su baax si fi teewu ñëpp rek bàyyiwuñ kenn di sëriñ Abdou Wahab Touré sunu xarit lool di sëtub Cheikh Abdoul Karim Touré di doomi sëriñ Abo di xalifa Cheikh Abdoul Karim ture mi ngi ànd ak mbokkam mu baax sëriñ Xaadim Jaw di sama xarit lool waa ñu jox leen ñu sànni ci ay kàddu ci bis bi bu baax baax a baax rek. asalaamaaleykum wa rahmatullah a ngi nuyu mbokk yëpp di nuyu gën gi nuyu di jiital ci nuyoo bi ki xam ne yàlla dogal na bokk njabootu borom Daaru Muxti gi ginnaaw bi ñu jiitlee suñu Sidi Moxtaar sëriñ sëriñ Muntaxa Mbakke xalifa général di ci tekk sëriñ Basiru Anta ak sama wëlëre yi ku ci mel ni kii di doomam di sëñ Amsa koy nuyu bu baax a baax di ko jaale tamit turandoom waajuram di nuyu tamit sëriñ Cheikh Niang sama xarit di sama lépp borom mouvement jug jot na maa koy nuyu bu baax a baax te yàlla dogal maanaam bis bi di bis bu baax di bis boo xamante ne nii bisum ñaan la buñ ne ñaan ñaan moom lépp xaj lépp ci la xaj ndax yàlla moom moo ñu ko digal yonent bi alayhi salaatu wasalaam tamit gën ñu ko firndeel doomu aadama bu ñàkk di ñaanal ak lu mu baax a baax ak fu mu di bokk tamit ñaan rek moo koy jariñ ndaxte suñu borom moom ñëpp bokk yam ci moom tekki dem moom dem na ñi fi des rek ñoo leen war a nekk di leen ñaanal te defe naa ne jéego ñu fi jéego ñëw fii tamit jéego yi jéego yiw la ndaxte ci lu baax lu ñu jëm maa ngi nuyu ñëpp di baalu àq tamit ñëpp di wax ne soxna si soxna su baax la woon comme ni ñu koy déggee xëy na ay jamono fekk wuñu fekk wuñu ko waaye diglu nañ ci moom ay ay gis nañ ci bit ay seede yu nit ñi di seede ci moom ay wax yu rafet yu nit ñi di wax ci moom maa ngi jégalu bu baax a baax ah, ñëwoon nag ci turu mouvement boo ne mouvement boo xam ne man ak suñu Cheikh ñoo ko bokkoon nga xamante ne ni ci lañ nekk nii ba tey muy mouvement jug jot na ah, ma ñëwoon fi teewal la ñun ñëpp kenn ku ñu nekk am nañu jot a waaye dañoo dañoo dañoo egseegul maa ngi jégalu bu baax a baax di nuyu tamit ñëpp di wax ne waaleykum salaam wa rahmatullah hmm. dégg li ma ci jàngee rek mooy li ma ci jàngee mooy maanaam sëriñ bi li ko bàyyi loon li bàyyi woon njabootu borom daarul gi jàngee naa ci ne borom daarul moxti kenn la woon borom daarul moxti ñëpp ko ràññee borom daarul moxti tànneef la ci njabootu sëriñ bi ndaxte lu toll ne ñu toppoon sëriñ bi ñëpp xam nañu leen te bi yàlla dogal sëriñ bi dem ci géej gi ñëpp ci borom daaru moxti la leen tegoon ci loxoom sëriñ bi yar leen defar leen ba koroog sëriñ bi dellu siwaat te dara yàqu ji kon su ma ñëwee ci këram mën naa ne këram laa ñëw ndax sëriñ basante ñang njabootu borom daaru la borom daaru mooy waajuram su ma ñëwee ci këram gis nit ñi nekkaat ci daara yi di jàng damay fàttali rek ne kenn ku nekk lan la sa waajur bàyyee moom ci nga war a nekk moom tamit nga war a war a toppatoo ndax ndono dafa dafa dafa fort loolu daal jàngat naa ko ci bu baax a baax ñun ñi xam ne ñun la yàlla dafa dogal ñu ne ñu nekk seen ginnaaw ñu topp seen tànk rek xam ne maanaam lu baax moom doy mukk te li ñu li ñu sëriñ bi bàyyee mooy lii mooy lu rafet ak tamit maanaam njàng alxuraan euh, topp diine topp tamit li nga xamante ni mooy suñu ñaari waajur ak ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dogal tamit ñu jabootuñu defe naa daal naa ko baax a baax xam ne daal li fi borom daaru bàyyi woon moom dara dara sànk ko ci moom na suñu basante ñangi daal moom mujjëbu pusu bi mu réer seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim di nuyu ñëpp di jiite ci nuyoo bi sëriñ Muntaqa Basiru di ko ñaanal yàlla defal ko fan bu gudd wér gu yaram bi ne am ci liggéey sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mu defal kàttan ba ko di ci toftal moom dal Basir ñaan ko sëriñ Ñaŋ di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te wéral ko te wéral ay cëram di ci toftal sëriñ am sax muy doomam di ko ñaanal moom it yàlla taxaw ko te jàppale ko di ziare ñëpp di baal xaq ñëpp di tuub tey jéggalu waaye ñuy gàttal kàdd yi rek comme ni ko suñu am si waxee comme moom suñu kilifa nga xasee wax rek daanaka wax nañ lépp liñ ci wax lañ dañuy dañuy toftalaat rek di ci ziare bu baax suñu Abdou Hamid Mara ak sëriñ seex Niang magg gam macha allah wax dëgg yàlla Cheikh Niang suñu xarit la suñu wëllër la suñu lépp la te li muy def lu ne danañu woo yëgal ñu ko moo tax maanaam sëñ Abdou Hamid mi ñu ne nañ def lu tuut pour yegg ci wax dëgg yàlla kàddu yi ni koy gàttal rek ndax li fi am sol lépp li jarax lépp kilifa yi suñu kilifa yi wax nañ ko pare daanaka dañoo baaxu daanaka bi suñu kilifa xasee sax ñu ci tegaat ak yeneen kàddu di saar baax baax a baax nag bismillah auzu billahi min sheytaan rajim bismillahi maa ngi nuyu mboole ñi fi daje kilifa yu baax yu tedd yi di leen wax ne li leen tax a jóg muy xam kan mooy lan mooy euh, dëgg dëgg Kral ak euh, kan mooy Soxna Anta mi nga xam ne mooy borom bis bii ñuy màggal fii ci Touba Soxna Anta Ñang di koo xamee ne moo meññi sëñ Basiru Anta di kenn ci njabootu borom daaru meññi ki nga xam ne mooy Soxna Mbàkki mi nga xam ne moo féete fii tey di màggal bisam bisam bii tey maa ngi leen di xamal ne wax daal dëgg-dëgg kan mooy Soxna Anta Niang mooy wax dëgg-dëgg kan mooy Serigne Bassirou Anta Niang kenn ku ne xam na kan mooy Serigne Bassirou Anta Niang ci eh, axlu Mbàkke yépp rawatina nun taal bi Soxna ante Niang kilifa la gu mag goo xam ne mu ngi fekk baax kër Alla Niang suñu Alla Niang mooy way juróomu góor di woon koo xamee ne ku yàlla mayan la ci barke ci jamono sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moo ko moo ko defaloon lépp lépp luy xeetoo ko barke mi ngi mu ngi woon ak moom foofu ci Kerala Kerala dëkk bu mag la woon boo xam ne deuxième village waa la woon foofu ci commune moom moo neen deuxième village dëkk la woon boo xam ne euh, ci amoon na ay jamono soo nee Ndindi ne kër ne Kër Ngalgu ne gaawaan karaal rek ngay mën a wax moo gënoon a mag ci dëkk yi ne foofu waa foofu la fekk baax moom soxna Anta waaye juróomu góor ak bu jigéen ñi foofu lañ nekk foofu lañ foofu lañ fekk baax mu doonoon mm, kenn ci euh, soxna yi borom daaru ba meññ ci dañ ba si Anta ak euh, soxna Mbàkke ak ñeneen ñoo xam ne bu fekkee ndax ñeneen yaakaar naa ñooñ daal laa ci waaye ñooñu di ay nit yoo xamee ne euh, bu dee xam-xam macha allah ñëpp xam nañ ne mi ngi ci mi ngi ci suñu bisironte ni kii nga xame ne mooy soxna Mbàkke nekk fii itam au di sàmm gi quartier bi yëpp xam nañ ko ak koñ bi euh, ci wàllu yaatu mbaax ak mën a wuuf euh, njaboot gi loolu daal li ma ci mën a xam daal mooy maa ngi leen di leeral ne eh, yeen ki ngeen di topp pour xam mooy kan dana jafe lool ci ñu wax leen mooy kan ndax dañoo jamonantewul ak moom waaye li ñu ci xam daal mooy nit ku baax la ku baax la koo xam ne ñu ñaan yàlla taas ñu ci barkeem lépp luñ ko fi jàngal ci ay kaamil ak lépp luñ ko fi ñaanal yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla eh, jébbal fa mu fa mu nekk yàlla nañu yàlla dimbale ba ñu jot barke bi ah, euh, maa ngi nuyu maa ngi sant nag seex mi nga xamee boo leen fi yàpp indi euh, ngir ngir lan ngir bëgg a dundal euh, cosaanu maamam ak itam bëgg a nekk ci yoon woo xamee bu baax la yéen ñi nga xam ne yéen la ànd ñëw fii ñoo ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum. rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw ban sant yàlla jul ci yonent bi di sant Serigne Touba bu baax a baax di ñaanal Serigne Mountakha mu Serigne Bassirou suñ borom yàggal ko fi te wéral ko ba lépp li nga xam ne moom la yéene liggéeyal Serigne Touba sunu borom may ko la kawe njortam di ziyaara si Mountakha mu Serigne Mamor ndax nu kazalika di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi ba lépp li nga xam ne moom la naal liggéeyal yoonu murit saa borom may ko ci la kaw ñor tam ànd ak ñun. ñu ngi ziare mboolem ñi nga xam ne ñoo teew ci bis di ziare suñu jëwriñ wax di yàlla lot nañ ci kàddu yi ndax daanaka suñu jëwriñ moom suñu wax loo dañuy wax. waaw daayira bi nag ahlu kuréelu kennal jaalibat maraxib moo di turam waaw at mi nag wax dëgg yàlla yaakaar naa bii ni mooy quatrième édition ñu ànd cee liggéeyal maam Sëñ Muntaxa ñu ànd ci liggéeyal maam Soxna Mbacke waaw di ci defar ay xéewal at mu jot di ko indi yaakaar naa ñun moom wàllu kafe ge ci leen féetewoo te at mu jot ñu koy yaatal yaatal ko am solo waaw ndax at mu jot daanaka lu tàngal ci café rek at moom bu dellusiwaatee da koy doublé dañ ciy tàngal lu ëpp loola. kon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax di sant bu baax a baax suñu jëwriñ ji nga xam ne moom moo ñu waxloo wax dëgg yàlla kàddu yi moom lot nañ ci bu baax a baax a baax a baax a baax ndax ñun moom jëf leen gën a euh, mën na ci wax wax moom wax dëgg yàlla moom ñu ngi ciy jéegul bu baax daal xanaa waaw café gi moom suñ ci nekkee wax dëgg yàlla yëg-yëg biñ ci am moom dañ ciy am yëg boo xam ni maanaam ku gis sax niñ ciy liggéey nga xam ne ñii liggéeyuñ ci ngir dara dañ ciy liggéey ngir yëg-yëg yëg-yëg boobu nag doonul ci ñun suñ xaam mooñ def ci ñun yëg-yëg boobu waaw yëg boobu moom la ndax bu buñ ci àndee daanaka bu ñuy liggéey ci kafe gi dañ ciy yor weneen melakaan woo xam ne par rapport ak melakaan wi ñu xamee ci biti waaw. waaw daayira moom wax dëgg yàlla macha allah yaatu na lool ndax daayira bi yaakaar naa ban ko sase yàgg na lool waaye at mu jot day gën a développé te at jot day gën a yokk kon yaakaar naa luy dëgg mooy doxee noonu waaye lu dëgg du doxee noonu waaw. waaw dayra moom yaakaar naa moom yaatu na lool yaatu na lool génn na saam ndax ñun ñii di wax yow ni Dakar la nekk te dañ ko fiy dundal bu baax a baax ay Sibaxotaan ak biir dëkk beeg maanaam fu nekk daal dayra bi daal yaatu na fa waaw dayra bi moom développé na bu baax a baax waaw aouzu billahi min asheytaan rajim wa inni aouzuha bika wa surriyataha min asheytaan rajim rabbi aouzu bika min hamasati sayatin wa aouzu bika rabbi an yahduruni asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ni ñoo ñuy seetaan ñëpp di eh, leen ziyaara waaw sëñ bi waaw lii nag eh, ab kuréel bu ñuy wax kennal jaalibatul maraaxib la sëriñ Muntaxa ibnu sëriñ Mamor ibnu sëriñ Muntaxa Mbàkke mooy jëwrin ji moo ko jiite kuréel bi nag eh, ay pàcc yu baree bari la ko sëriñ bi xaaj am na ñoo xam ne dañ leen a féete ci jàng xasida am na ñoo xam ne dañ leen a féete ci wàllum waañ wi am na ñoo xam ne dañ leen a le ci wàllum kafe gi waaye bari na ay pàcc yoo xam ne nii euh, lépp loo xalaat ci euh, lu ñuy def rek am na ci biir daara ji. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki julli ci mbokki taalibe yi di ñaanal as Cheikh Sidi al Muxtaar sunu borom yokk ay leeram ca taas ñu ci barkeem Serigne Mouhamadul Muntaxa moom Cheikhul moom mi nga xam ni moo fi nekkal Serigne Touba suñu borom guddal aw fanam wéral ay cëram ba naa li nga xam ni naal na ko ci yoonu Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul suñu borom kattanal ko dooleel ko may ko fan wu gudd ban mam ba mën koo liggéey ca ànd koog moom ci barke Cheikhul Khadim di siyaaro bu baax Serigne Cheikh Jëmb faal mi nga xam ne moo fi toog toogaayu maam Cheikh Ibrahima faal di ko ñaanal mooy fan wu gudd ak wér ak wérle ba lépp li nga xam ni yéene na koo liggéeyal Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima suñu borom defal ko ci lu kawe njortam ah jërëjëf ñu ngi kontaan lool di mbégte ci laaj boobu nga ñu laaj ci lii di xam ni waa kuréelu kennal jaalibatul maraaxib la muy xasida yooyu nga xam ni yaa ngi koy laaj ba xam yenn saa yi dinañ ci am ay lim yoo xam dañ koy faral di def ak ci alxuraan yi kaamil yoo xam dañuy faral di wàcc yenn saa yi ay kaamil yoo xam dañ koy faral di def ngir def ko loo xam ne ay tuyaabal ak luy jur yiw ci dëkk bi loolu moom macha allah ñu ngi ci bu baax a baax a baax. Euh, euh, euh, kenn ku hmm. euh, ah. lool moom ñi ngi ciy sant bu baax baax ñu ngi sant bu baax a baax ndax boo gisee soxna yi nga fi seen nii ci biir daara ji ak góor ñi ngay seen ci biir daara ji kenn ku ne ci fi mu toll nii sëriñ bi xar na euh, tànku tuwéyam ngir fas yéene xidma sa diggante ak ñoom ba kenn ku ne ci am na ñoo xam ne woon xamuñu lu dul kaay ma xamuñu sax kaay ma la te sëriñ bi dimbali na leen ci ba kenn ku ne ci am na nañu ci mokkal xasida yi am na ñoo xam ne ñi ngi jàng ba léegi lii daara jum samp la chaque altine ba talaata ñëpp dañ koy jàng ji ca kër ga ngir man ci xasida yi sëñ Tuubaa dara loolu moom sëñ bi mi ngi ciy def kémtu lay kàttanam ba ci góor ñeet sëriñ bi am na ñoo xamante ni ba ci sama classe gi di wax kenn ku ne ci sëriñ bi def na ci yow dara loo xamante ni saa su ne da ngay dem ca daara ja di amal bisub xasida boo xamante ni dañ koy def ay lim ak ñoo xamante ni mokkalul ñu leen di xamal seeni war ma ak seeni teggin ak diina ji ni ci mën a doxe ba man cee jariñu dëgg-dëgg ñu ngi ciy def seen suñu kéemtalaay kàttan waaw. ñang bi mu nekkee xale la waajuram wu góor génn àdduna yàlla def ñu nekk ay tut tànk yu ndaw a ndaw Sëñ Tuubaa wax ci làmmiñu boppam ne képp koo xam ne si ñàll mi bàyyi na la fa ngay sama doom nañ ma la indil ndax képp ku si ñàll mi ñang jur. man sëñ Tuubaa maa la jur noonu la ko waxee ba góor gu ñuy wax Balla Sàmb jëli njabootu si ñàll mi ñëng gépp ñu nekk ay tu tànk mu indi leen euh, jox leen sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa téye leen fa ci noonu la leen fa téye ba ni soxna Anta nekk fa nekk ak waajuru soxna moom yi moom sëriñ Tuubaa la ko sëriñ Tuubaa féetale woon muy tërbiya waajuru soxna moom yi noonu la fa nekkee moom soxna Anta Niang bañ yëkkati ko jox ko borom daarul Mouhty biñ ko joxee boroom daarul Mouhty mu am fa doom ju ñuy wax Cheikh Bassirou Anta Niang ak soxna Mbacke Thierno yàlla def ñaan googu na xam ne ñu ngi koy ñaanal soxna Anta mu làqu jamono mu mu bi mu génnee àdduna fële ca daarul Mouhty ca ñu denc ko fii ci armée daarul Mouhty ñu koy wax toolu mataar Dia soxna sii nga xam ne mooy soxna Mbacke Thierno di caatum borom Darou Mouhty di doomi soxna Anta mu jël ñaan googu na xam ne moom lañ war a ñaanal yaayam jooju mu féetewoo ko di ko def moom soxna Mbacke Thierno liñ ci mën a jàpp xëy na mi ngi ko commencé def ci atum 1992 wala 93 di ko def fii ci kër Alaaji Thierno Samb ci gaar bu mag boobu ba léegi nag moom soxna si mi ngi taxoo ñaan googu di ñaanal yaayam ju baax jooju ñu koy wax soxna Anta Ñang soxna si nag mooy am jaatam moog Seex Basiru la am ci kër borom Daarul Muxti di soxna su lakk ngërëm làq na ngërëmal soxna moomi làq na ngërëmal Sëriñ Tuubaa làq na ngërëmal borom Daarul Muxti ba génn àdduna ñu taxoo ko di ko ñaanal ñun ñii di ak njabootam di sant namit mbokk yi nga xam ne ñoom lañ ko àndal saa su ne ndax fañ ko commencé sori na lool ña ko commencé ca Touba Mosquée di ko def di ko def ba egsi fii ci Sam Jaxate te bu ñëwee waa Sam day mel ni seen bis la ñoom ñëpp ndax noonu lañ jàppee soxna si ñoom dañ koo jàpp lool te jàppantuuñ ko bu bu ñëwee ñoom ku ci nekk la nga am ak la nga man di nga ko génne ñëw ànd ak soxna si bis bi ndax ñoom ñëpp ñu ngi nii tey te am na ñoo xam ne ñëwaguñu foofu lañ teg soxna si xëy na ñoom dese nañoo xam sax soxna Anta Niang ñoom soxna si lañ xam soxna Mbacke Thierno lañ xam lu mu xew la ñu jug kon nag ñu ngi leen di sant bu baax ñoom it di leen gërëm te di leen ñaanal xam naa dina gën a yaatu sax ci kanam incha allah boo duggee ci sang si danañ gën a le kan mooy soxna Anta Niang li ma lay mën a xamal daal mooy doomi Serigne Alamy Niang la Serigne mi Niang ci ñu njëkk a jébbalu Serigne Touba bokk bi mu génn àdduna Serigne Touba moo dajale ay doomam ne képp ku mu bàyyi sama sama doom la nañ ma ko andil kon moom mi ngi yaroo kër gu mag ci njaareem ci doomi sëñ Tuubaa yi ñu jox ko waajuru soxna moomi waajuru soxna moomi moo ko yar ba mu loxo ci loxoy maam Cerno Birahim maam Cerno Birahim am na ci ñetti doom kenn ki dafa teel a làqu Cheikh Bassirou Anta Niang ak soxna Mbacke Cerno ñoo ci dund ba tey ji ñu leen di ñaanal ñu yàgg fi lool te ànd ku wér ak mbooleem seen njaboot gépp ak seen taalibe ak mbooleem mi leen di jàppale ñëpp barakati Cheikhul Khadim kaana allahu bi karami baaxil Khadim soxna Mbàkke bismillah ñoo ngi door di loolu njukkal maam soxna Mbàkke maam soxna Mbàkke maam soxna Mbàkke di loolu njukkal door nana bismillah ñoo ngi door bismillah ñoo ngi door di loolu njukkal maam soxna